jàppee ngir gën a mën a waajal élection yi. waaw soxna jaara dafa ñoo xam ne tuutee des sama leen ci ngërëm li. Mhm. mooy suma gars yi may tooñ di leen tuddee nag euh, indien yi. Mhm. <laughs> mooy euh, waa Pastef fii ci focus bi nga xam ne yàlla dogal na ne euh, ci sama gémmiñ gi la njëkkee. Mhm. waaw bu ko defee nag ñu baree baree baree baree ñëw nañ wax leen leen lii tam moom mooy dëgg focus leen. Mhm. waaw seen focus boobu nag nga xamante ne ni ci sama jëmm ju xeebu ji la njëkk a dooree ah daa mel ni topp nañ ko ñoom nag euh, sant nañ sant naa leen ci waaw bu baax a baax a baax gërëm naa leen ci bu wér a wér ci. Hmm. Euh, loolee nga xam ne maanaam. may ma bu sa dem mbool dalee euh, dañu cee dañu cee topp bu ko defee nag ñu sant leen gërëm leen bu baax waa communiqué bi nga xam ne nag. Mhm. ancien président Macky Sall daf ko bind euh, ma liiral la ko kon dafa ne rek euh, mm-hmm. comme ni nga ko xamee euh, tolluwaayu dundinu politiku Sénégal ginnaaw ba ñu tasee assemblée nationale ba ca boppam moom moo tax nag ba ñu jël ma def ma tête de liste bu coalition takku wàllu Sénégal pour élection yi nga xam ne dañu ko jàpp fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru novembre ci deux mille vingt ci condition yooyu nag ngir bañ lépp loo xam ni war naa mbëkkante te lu du du lu defu yoo xam ni mënta laale waaye bu loolu weesoo it ab conflit d'intérêt woo xam ne dafay taxaw mm-hmm. looloo taxoon daal ma bëgg laa xamal ne daal fi mu nekk nii jël naa dogal yow Emmanuel Macron tekki sama ndomba tànk rocceeku nag ci activité yi nga xam ne mooy envoyé spécialu du pacte de Paris pour les peuples et la planète di mm-hmm. quatre pays mm-hmm. nee na bis ni ki tey juróom-ñeenti fan ci weeru octobre ginnaaw sommet Hambourg sur la durabilité bi nga xam ne nag maanaam euh, non seulement teewoon naa waaye jëloon naa fa ay engagement mobiliser nag askan wi communauté international bi yëpp ci lu jëm ci wàllu objectifu pacte de Paris boobee pour les peuples et la planète nekkoon na daal ngir man ab liggéey loo xamante ni nii lu ama solo la ba tax na nag fi mu nekk nii maa ngi lay gërëm di la sant yow Macron ci confiance bi nga xamante ni nii joxoon nga ma ko waaye nag di feddaliwaat sama kóllëre sama diggante ak yow ci lu jëm ci wàllum xaritoo dalalal nag sa xel ndaxte daal fi mu nekk nii ba léegi maa ngi ni tëng taxaw ngir rek continuer di liggéey ak yow ci lu jëm nag ci wàllum ay sujet yoo xam ne daal intérêt wu kuma lay ne loo xam ne askan wi yëpp ñoom ñoo ko soxla. kon nag jàppal monsieur le président daal maa ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax nee na Macky Sall signé ci suuf son excellence monsieur Emmanuel Macron président de la République française Paris. Hmm. communiqué bii nag le président Macky Sall kon bind. daal di koy jaglelee. Euh, Emmanuel euh, Emmanuel Macron soxna soxna Jaara. Euh, ci ci ci communiqué bi daal suñu ko gàttalee maanaam bu ñu ko tënkee moom Macky Sall dafa daal di euh, bàyyi la ko denkoon ngir gën a mën a concentré ci réewum Sénégal surtout ci élection législative yi ñu daal di dët ba ah waaw Macky Sall day dafa am benn mot boo xam ne daf ko benn phrase la xaw ma expression xaw ma lan ci moom fi mu bokk. Mhm. te sugu chaque jour da koy faral di wax moom liggéey. Hmm. Macky dafa ne. moom dafa bokk ci benn xeet woo xam ni xaw ma nag ban côté la xaw ma meen la xaw ma géño waaye moom nee na moom moom fa mu bokk ci wàllum deret hmm. ñoom kenn du leen jam naa ni dafa bokk si issu d'une lignée boo xam ne nee na guerrière expression boobu lay utiliser hmm. nee na ñoom seen famille euh, ku leen ko sambañ Euh, ñu rokkin la ko. ku ñu ko ku timbax ñu timbax la ko maanaam ñoom seen famille nekkuñu ay nit ñoo xam ni euh, da leen di jam naa hmm, kenn du leen jam naa ni. déedéet ñoom léegi nag boo résumé loolu maanaam ñoom ay fayukat lañ ay fayukat. ñu bàyyi waaw duñu bàyyi. buñ màttee mu daj waaw kay. te Macky Sall boo xoolee Macky Sall ay mbiram Macky Sall du bàyyi. Macky Sall ay jëm yu tedd di sëñ Sidi Maxtaar yàlla yàlla yokk leeram di sëriñ Abdul Aziz Sy Al Amin mu sëñ Babacar yàlla yàlla yokk leeram ñooñu dañu ay jamono ci ay jamono ñooñu moom jarul sax ci njëkk ndax ñoom képp ku ñuy ñaan ci njëkk rek lañ lay ñaan mhm. ndax réew mi dëgg la mbirum justice day doxal am foo xam ne foo président de la république yeggee mu léeg-léeg mu gracier gis nañ ci mu gracier fi koo xam ne dañ ne ay mbirum faux médicament lay def kooku suñu neexee ñu ne day rey ñu boole ko ca liste grâce ya ñu ne ca ña doon tànn la président de la république nekkul ne moom mooy def sélection wutal nañ ko lay daal mm-hmm. Macky Sall lu ko waay ñaar danaan la d'accord dégg naa la lu ko waay ñaan daf naan waa baax na waaye xam naa ni moom daal calendrier am ak agenda am bu ne ciix mat du ba dama jàpp ne nag timing bi jaara hmm. baaxul ñenn ñi ñu ngi koy comparer ak Ablaye Wade en deux mille dix douze treize quatorze quinze seize ba 17 Macky sàll bu respecté woon ay kàddoom kon ca 2017 jooju la élection présidentielle di am parce que dane woon day wàññi at yi lay Wade wax ne bëgguma ko gêner moo tax man duma ca wax yàlla dogal ci mbaaxam ngeen baal ma ci kàddu gi man mii maa ko njëkk a wax loo deux ans après malgré l'emprisonnement de son de son fils. Mm -hmm. mu ne man malgré lu métti lii yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp man du ma wax du ma dugg ci ay activité politique wu réew ma man daal bàyyil ma maye silence Macky moom juróom-benn weer fa mu doon liggéeyee mu tekki ndomba tànk yéen déggoo ma de nee na dañ koo investir ci list yi ci Sénégal. mënul mm-hmm. muñ. lii nii ñu koy jañaxal nii suba ngoon ba bëccëg di wax nii nii nii nii nii nii nii occasion la doon xaar rek pour samp ndënd léegi nag man nag damaa jàpp ne moom nan di la moom xam na réew mi ni muy doxe lépp luy xeetoog fonction yi nga xamante ni nii nit da koy da koy kii fii ci réew mi nekk na ministre intérieur kon nekk na patron wu collectivité territoriale yi. Mhm. nekk na patron wu le commandement territorial. nekk na premier ministre. élection yi ñu jëm nii nii nii nii nii Macky Sall nekkoon na député dëgg loolu dëgg nekkoon na tam président de la république xam na moom élection vent bi bu xasee ba jolli présidentielle buñ ne bërëb ka koy gagné ci suñu culture boobu première alternance 2000 la am. ba alternance commencé am ak léegi nii foofu nga mën a natte parti bu ñëw au pouvoir première élection député yi ngay tëgg pour changer assemblée nationale da ngay gañ première élection locale ba ci topp da ngay gañ mhm. deuxième mandat ba da ngay gañ ñoom ñooñu de député ba da ngay gañ xëj ca local yi ñëw ngay commencé di am jafe-jafe Ablaye Wade premier local am deux daa roñ collectivité territoriale yi ci kaw waa parti socialiste waaye ba 2009 ñëwee di deuxième local ba ca la waa Bennoo Siggil Sénégal taxawee sonal ko ci gox yu bare bare capital régional yi presque da koo ñàkk Macky Sall première locale am 2014. Mhm. da koo gagné deuxième locale am mooy 2022 capital régional yëpp da kaa perte kon moom xam na xel ne timing bi baaxul mais malgré loolu noonu yëpp. ak vent changement ak espoir bi am ci réew mi. mi ngi ma ki day forcé parce que moom boo demee def na ci bopp ba ne comme que am lañ jiitaloon conditions yi nekkuñ fa man lañ gën a bëgg am te moom ci boppam doon xeex am te malgré loolu yëpp am amoon na nangam moom pour moom bu ñëwee xëy na mu tane am. dayo baa ngi fi ba tey <clears throat> loolu la yaakaar peut léegi nag na ñëw. gari gari xam nga xam nga loolu loolu soxna jaar hmm. ah léegi na ñëw li ñu waxoon noonu rek ci dossier yu ñii doon politique ñu yóbbu woon leen police temps yi passé même ñu bokk passif d'accord ñu woon ci loolu xam nga lu tax hmm. bàyyi leen ñu dem bu leen may ab porox ndoll woo xamante ni dañ naan lii moo tax ba suñuy voix wàññeeku lii moo tax ba gagné wuñu élection yi dañ leen di bàyyi ñu dem yow xam nga ne vent bi fi mu toll nii nii nii nii nii nii gëmuñ ne cinquante quatre pour cent yi xanaa six pour cent yi dem nañ laa yaakaar walla dañ leen di bàyyi ñu bokk Macky bu ñëwee ci réew mi dañ koy téye bu ñëwee di boo bu fi ñëwee boo ko indilee jafe-jafe def def def erreur ba ko mu ñëw ñu football. kon Macky gari. kon Macky gari. <laughs> sama nijaay piège la bu ñu honorable moo lal diir. dafa am leneen lu ma bëggoon a wax waaye lii télé la joxal gars yi ma laaj samay rawaan ba xam ndax loolu moo xaw la bu ma ko wax. d'accord Ami Cissé mu mel ni jamono juñ toll nii nag élection législative yi ñu daal di dëtmal euh, Macky Sall moom jamono ji. Euh, démissionné na ci 4P ngir euh, tête de bi nga xam ne moom la ñu ko daal di def lu ñu mel nag jàpp na ni euh, voilà daf koy amal ngir gën a concentré wu ci politique wu réew mi ndax jàpp nga ay risques.